أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مبارك جلدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نجي نو أحيان سيسن وقتانو شهر رمضان المبارك dilen ndokel ci wèr wi nga xamantene dugg nañ ci ahjam yalla nu yalla may ñu genn ci ahjam yàlla may ñu ci tawfiixul ilaahi yàlla defal ñu ci wér bu baax di ñaan adduna bi eh, li ñu nekk di mbas yàlla ci yàlla xettali bu baax di ko ñaan moom yàlla yërmandeem suturam yàlla nañu gunge fu ñu mën a ne waaye ñun tamit nañu góorgóorlu bu baax jël suñuy matuwaay waaye góorgóorlu yi tuub dellu ci yàlla mbokk yi bu ñu waxee weeru koor weeru taqwallahi la مرا سوني برام ني كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لتح من لعلكم تتقون فيناليتي بي موي نين ام تقوى الله لول موتاخ نغنيل يتي كور بارينا لول مبوك يي بوك نا سي نغنيل يوي لي وير لا وو خامتاني سوني بروم سي لا واتي القران الكريم لول نغنيل te ngëneelu alquran ci biir koor incha allah ci waxtaan yi di ñëw danañ ci ñëw li ñuy wax ci ngëneelu koor yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne koor gi dañu ko séddalee ci ñetti pàcc mu ne fukk yu jëkk yi yërmande la yeneen fukk yi ci topp njëggal yeneen fukk yi ci topp di mujjey mu ne njotu ci safara la yéen mbokk yi li nga xamante ne moo ne ci biir ngëneel yooyule awaluhu rahma yërmande boobule suñu borom mooy arrahman suñu borom mooy arrahim ak yeneen tur yoo xamante ne dafay wane yërmande suñu borom kon mbokk yi awaluhu rahma weeru yërmande la kon nañu xool ci weer wi mbokk yi ñu dawal yërmande suñu diggante nañu xool ci weer wi mbokk yi ci ay ngëneelam yër yërmande boobule ñu tàmbali ko suñu bopp waaye tamit képp koo xamante ne jaboote nañ la waaye képp koo xamante ni ñu ngi dund ak yow ci benn béréb moo xam waxtu la moo xam bëccëg la moo xam nu mu diir ba tol jamono bi ñu toogee nañu dawal yërmande foofu te rawatina ñii bokk fu ñu dëkk rawatina ñii bokk fu ñuy yëngatoo awaluhu rahma mbokk yi yërmande dafa war ndax adduna bi yàlla ci yërmande la ko lal moo tax yonente bi ne irhamu man fil ard yarhamukum man fi sama mbokk yi ya su yonente bi ne na ngeen yërëm ñi ci suuf mooy lan mooy képp koo xamante ne yaa ko ëpp kàntan ci lu mu mën a doon moom yonente boobule sallallahu alayhi wa sallam mi yàlla wax ne walakum fi rasulillahi uswatun xasana mooy seen modèle mu ne moom nañu góorgóorlu bu baax ba roy ko ci yërmande boobu mu ne irhamu man fi l ard man fi sama yërëm leen ñu ci suuf su ko defee yàlla mi nekk ci kaw asamaan yërëm leen mbokk yi mbokk yi nañu góor góorlu ci yërmande fukki fan yépp nañu ciy dawal yërmande mbokk yi ngir lan ngir suñu boroom man ñu yërëm kan moodul tooñ suñu boroom kan moodul fàtte mbokk yi kan moodul def luñu la def loowul kan moodul wax luñu la wax loowul mbokk yi te yaa ngi yaakaar toujours yàlla yërëm la kon nag kiy juum ci sa kilifteef kiy fàtte ci sa kilifteef xatta kii tey sax def ci sa kilifteef nga waroon ko mën a teg ay daan nga waroon ko mën a teg loo xamante ne nangam waaye sa xel dem ci weer wi ne weeru yërmande la irhamu man fi ard mbokk yi nañu dawal yërmande boobu ba ci ba ima yi yonente bi sallallahu alayhi wa ñaati yoon ngeen dégg ngeen gis mu daan plaidel ay ba ima ci yërmande ci wan nuñ leen war a yore kon nag mbokk yi weeru yërmande dugg na wéru yërmande bu àndax lo xamantene mbass la mu xew ci adina kon xel yépp warna delu ci ne yàlla mi ñi sàkku mu yërëm ñu ñépp jaxla nañ ñépp tit nañ yërmandeem rek ku nekk ya nga talal say loxo naan ya rab ya rab ya rab ahno kon ko ñaane kon degit ya rab joju na fekk yewit ki nga xamantene ya ko yilif ya ko upp kantan ya ko upp ay moy ya ko ya ko xolal bëtu yërmande ci moom amal cofeel ci moom awal ñeewante ci moom yërëm ko ngir yàlla mën ñu yërëm mbokk yi bokk na ci ngëneelu weeru koor fukk yooyu di yërmande buñ ne yërmande rek ni ma la ko waxee yaatu na maxfira ñëw muy am njéggal yal na nu ko yàlla defal ñun ñépp tooñ nañu suñu boroom te lii xew ci àddina bi rek ware na wane na ko ku ne yaa ngi ñaan ku ne yaa ngi def loo xam ne loo yaakaar ne lii de bu ma ko defee yàlla mën na ma ci musal mën na ma ci jéggal awsatuhu maxfira nga jéggal ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi lay tooñ wala tooñoon nañu la xattaa sax nga am yéen a jéggal ñi nga xamante ne fil mustaqbal dans l' avenir danañ la tooñ nga jëggal leen ngir lan yàlla mi jéggel mu man la jéggel wala mu man ñu jéggel nga jéggelé jéggel moo xamante bul xaar ba lott ci ne déggal naa ko léegi def nga say pexe sottiwul nga ne bàyyi naa la ah yàlla waaye jéggal naa la déedéet def ko te yàlla tax bul xaar ba intervention yi bari boo ko defee it baax na naam waaye jiitul ñépp ci yàlla mooy yëg nga ne tooñ nañ la ki la ko def yëg na ne tooñ nañ la ñi gis wala dégg yëg nañu tooñ nañ la nga jéggale ngir yàlla tax ci barke weeru koor wi kon mujj njalbeen gi mujj gi lépp yërmande la mbokk yi yërmande boobu moom ngay dawal ci lépp di jéggale dootoo xool kenn ndax yàlla moom mooy xafuur yàlla moom mooy tawaab te ku yaa ngi ñaan ku ne yaa ngi yaakaar mën yërmande joojule kon nag mbokk yi bokk na ci ngëneel yooyu jéggale ci biir weeru koor bokk na ci ngëneel yooyu le mbokk yi ci biir weeru koor itqun min an naar muy finalité ba yàlla musal ñu goreel ñu ci safara yàlla nañu ko yàlla defal yow it képp koo xamante ne nii am nga loo ko man toppe mooy finalité bi nga jéggal ko mooy goreel nga ko ci loolu boko defé yàlla ne doma gën gore mani dana la goré ci safara amélon na la bor daw na ci ba son mu lu ne def nako waye finalité ba nga ne ko djéggal na la ko kon koku gorél nga ko diwa ngi même budul sa digënté mom waye amé na nit bor yon tek nako loxo wala bok ñu ngi koy bëgg sonal wala bok xelam dalatul nalawatul guddi nalawatul bëccëg lu ne mu ngi koy def ngir bor bobulé nga xettaliko ci loolu yàlla na la ëllëg danaa la goreel nit a ngi nii di xelaat boppam di xelaat njabootam nan la leen di taxawoo rawatina fan yu tar yii le mbokk yi fan yi adduna bi yépp yëg nañu ne tar na ci ñoom waaye am na ñoo xamante ne yàlla am na lu mu la defal loo tanee kaneen xëj na kële waxuma la benn waaye amu ko waaye yow yor nga ba juróom kon jëlal as tuut ci li la yàlla jox nga dawal njëggalum yàlla yërmande yàlla nga xettali ko ci tiis yooyu nekk ci moom ci loo man ci taxawu ko nanga ko def loolu boo ko defee ëllëg yàlla subhanahu wa dinaa la gorel ci li nga xamante ne mooy safara mbokk yi bokk na ci ngëneel yi yàlla nee ne tuftaxu fiihi abwaabul janna mooy buntu aljana yi yàlla dana leen ubbi loolu mooy lan mooy def lu baax day yomb def lu baax day jàppandi seytaane mila doon jax-jaxal mi la doon perturbé yàlla jéng na leen ko wa suffiyati shayatin ngir lan ngir ummatu seydina muhammad mën a jaamu seen borom loolu yëpp ci barke ci ngëneelu biir weeru koor lañ ko yàlla defale kon bunti xéewal yi mbokk yi ubbeeku na kon ndëkk ku war nga profité ci waxtu wii ci biir weeru koor wi def ci loo man ci lu baax awwaluhu awsatuhu aaxiruhu ñett ñett yooyu muy yërmande muy njëggal muy njot ci safara yépp ñu dawalante ko suñu biir ngir yàlla mi nga xamante ne moo tiim ñépp moo fiite ñépp kaw moom yàlla mu mën a xool ci ñun yërmande man ñu jéggal man ñu goreel safara kon nag mbokk yi in uridu illa al islah ma stataatu wa ma tawfiqi illa billah lii day lañ leen andiloon di ñaan yàlla réew mi yàlla na fi yàlla def jàmm adduna bi yàlla na fi yàlla def jàmm mbas mi yàlla na nu ko yàlla daxal mbokk yi ba ñun ñépp ñu santaat yàlla bu baax delluwaat ci activités yi waaye tamit nañu xam ne war nañu dellu ci yàlla fa firru ila allah lii lañ leen andiloon tey واخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته